sarwi mok sari wacce yi duñu wuté lu bari burne sin allahu a'lam bi Tilikalalu tilka lalu ayatul qur'an moy kawte fi alquran wa kitabin te mubin téere bir hudan lii njub la wa bushra mbég la itam lil muminin ñeel way gëm ñi yàlla mu mel ni dañ ko laaj ñay gëm yàlla ñan la mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yuqiimuuna danañu taxawal salaata julli wa yowutuuna ñuy joxe zakata azaka wahum te ñoom yuqinoona ñuy woolu bil ti ci dikkuk alaxira yi ne léegi ne naka ñi nga xam ne nag laa yowminoona duñu gëm bil axira ñooñu zeyen naa rafetal nañ lawum a amaalum seen jëf rek fahum ñoom yaamawuna ñuy déngi déngi ulayka ñooñu la dina ñooñu ñi nga xam ne lawum ñeel na leen soowul adaab ñaaw ak mbugal wahum te ñoom fi laaxirati hum ñoom alaxsaruun ñoo di way perte ya koy naka yow dey aleyka salaatu wasalaam la tulaqaa def na sala alquran min la dun xakimin nga bàyyee ko mu bàyyee ko fa ku xarala alimin ku xam moo la ko sax ba doo ko fàtte mu ngi dellusi ci Moussa mu ne jàngatal is qaala ba muy wax Moussa li aalihi ñeel jabaram jene inni man aana su seen naa aw safara saatiikum danaa dikkal leen indil leen minhaa ci safara wa bi xabarin ci solo aw aatiikum wala ma dikkal leen bi shihaabin ci jum bi shihaabi xabasin ci jum bu ñuy jumoo laallakum ndax yéen tastaloo na ngeen jaaru fa lama jaaha ba mu dikkalee sawara wa noo diye woyef ko ne an eey burika yanna barkeeleef man fi naari ñi nekk ci sawara wa wa man xawlaha ak li ko wër wa subhaanallahi sella ñeel na yàlla rabbil alamin ki borom binde fi man mii di leer fii allahuma yàlla al aziz maay ki not ci kattan alxakim maay ki xaral buur ne ko wal qisanil asaaka sa yet wi yow Moussa falammaa ra'aahaa ba mu gisee yet wa tahtazzu ma ngay yëngatu kaannahaa daanaka moom jaanun jaan la wala Moussa dëdd mudbiran muy joxe gannaaw walam yuaqib ñeme wala dellu si yaa Moussa laa taxaf bul ragal inni man de laa yaxaafu du ragal la daya fi man almursalo nañuy yónni ña illaa man zalama lu may ku tooñ na su ma baddala topp mu soppi xusnan lu rafet baada su in gannaaw ba mu defee lu ñaaw fii daal ku fi ragal yaa xam loo li nga fi def way ni la raximun aji yëram la waa de xel yàlla ne ko dugalal yadaka sa loxo fii jay bi ko ci sa jiba taxaruñ nga génnee ko dayda muy aji weex ak ak leer min xeyri su inte duut jàngoro fii tisi ayatin nga boole koog juróom-ñeenti kawtéef ilaa na nga yóbbu ko ci firawna wa qawmihi innahum ñoom day kaanu nekk nañ xawman diw nit faasiqi nañu doy gën a topp fa la lama jaathum ba nga xamee ne dikkal na mu leen naa suñu kawtéef mubsiratan mu yaa ji leer xaaloo ñu ne haada kii day sexrun jabar la mu bineen guddaay ji biir wa jaxadoo weddi nañ biyaa ci loolu wastayqanat ha te wóolu na weddi gaan fu sum seen bopp zulman ngir tooñ wa uluwan ak kawe fandur seetal nag kayfa kaane naka la nekkee aqibatul mufsidin mu jëg ñi nga xam ne ñooy yàq bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci xéwalu yàlla gi mu joxoon daawuda ak suleymaan yonte yàlla suleymaan alayhi salaatu wasalaam mooy doomi daawuda bokk ci sëtu yusuf ak binyamin ak sëtu isxaq ak yaqub suleymaan yàlla joxoon na ko ak nubuwa ak ak risaala ak ak mulk ngóor gu rëy nag la amoon docteur taw seyno rahmatullahi alayhi nee na ca téeréem ba muy critiquer mu ne suleymaan ku añaan la woon mu ne laa ara ila annahu rajulun xasuut mooy jamono bi muy bind adabiyaatam yi lu nekk mu dugg ci ndeysaan bi mu magee nag mu bindaat beneen téere tuddee ko ba ñu bari mu tuub ci mu ne Suleymaan ku añaan la parce que nit kuy wax na yàlla jox ma nguur goo xam ne dootoo ko ci kenn na sama gannaaw mu ne laa ara illa annahu rajulun xasuud Suleymaan yàlla joxoon na ko ci nguur lu yàlla joxut kenn yeneen bi alayhi salaatu wasalaam xeex naag seytaane iblis ba jàpp ko yeew ko mu ne góor gi di jooy di jooy di jooy ba bët set mu ne ko Muhammad yewi mu ne ko duma lay yewi fii laa lay bàyyi ba ñëpp fekk la fi kenn mënu laa gis ma ne leen ñëw leen iblis a ngi nii ak sa sikkim bu gudd bile muy jooy nag ba sikkim bi daal di eh, ronko yi ñëw ci sikkim bi ba yàgg yonent bi ne ko naa la ba yewi sax ndax sa mbokk sama mbokk Suleymaan ne noonu yàlla yaa nag ma may loo mayut kenn te munut la woon a wane kon bu ma la wanee kon dana am lu kenn amul xaaral may dal di ko yewi mu dal di dem Suleymaan nguur ga réyoon na bee moom rek moo amoon moom it di wax ak picc yi xam nga nit ku ne boo xeebut sëg may rek xam ne yàlla may na lu nit kenn yonent yàlla Moussa moo am bu waxee yàlla tontu ci saa si rek wax rek yàlla wax nee na wax ji fu ne lay jógee sama yaram yépp ay dégg noonu la war a mel yonteel ibrahima yàlla ne ko yow yow laa def xarit taxasa la ibrahima xalila loolu kenn amu ko moom moom rek la yow laa jàpp ngay sama xarit yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko yow laa def nga nekk sama soppe suleymaan nag yàlla may ko muy dégg waxi picc di dégg waxi melentaan yi picc da koy romb sab mu ne def ne ma gaaw dellu ci sama dom. bu romb melentaan bu ñu waxee mu dégg ko suleyman nag jóg ànd ak ànd ak lelam bu réy boobu bu jógee jinne yi dañuy jóg moo leen man di leen liggéeyloo guddeeg bëccëg dama damay topp ko jinne yi topp ko picc yi topp ko noonu lay tukkee ngelaw yi di ko yenu muy dem mu ñëw ba wàcc ci benn këru xorondom ne cirib mu ne mu dégg xorondom bu mag ma ngi naan gaaw leen dugg ci pax yi balaa leen suleymaan a dëgg ak lilam bu bari bile suleymaan dal di muuñ ne ko waaw xanaa ñun nga ne amuñuy xel be bu ñëwee dañ leen di joggi rek ngeen dal di dee mu ne ko yonent baal ma dama ne fekk yéguleen leen ko waxum laa yashuruna laa wax man dama ne laa yaxtimannakum suleymaan wa junoodahu waxum laa yashurun ndax yéen du ngeen du ngeen ko yëg suleymaan alayhi salaatu su picc waxee mu dégg bu yent yent yi waxee mu dégg day laaj picc yi fan la ndox mi toll picc ndox yi ñu ne ko fii la mu ne jinne yi na ndox mi génn ñu génne léegi ñu jëriñoo demati rek loolu moo tax buur ne wala qad aateenaa joxoon nañ daawud ak suleymaan ilman xam-xam وقال ني واخ الحمد لله تنت نيل خيول لوم ري ري الحمد لله موكاي فاي الذي يالا ماغا خامن فضلنا غنال نانيو على كثير تي لو باري من عبادي تي جام يا المؤمنين ني دي وي گم ووارث دننا سليمان داوود مفعول مي فاعل جي دننا سليمان دننا داوود تي نغورغا تي خام خام ci yonente ga wa qaala mu wax mom suleymaan ba wuto bayam ni yaa ayuha naasu non rek lay baxé de waxtu wuñ ne bay daanu na Dom warna nek nekk ne war ne bëret lépp li bay manon man ko rek walaay xam na nga xam dom jadd na bay ja daanu na te dom ja mënut loola ay amna nak ko ku jadd na motaxit ba sulay ba nga xam daawuda jadd na rek dem na rek suleymaan dal di koy yenu wa warisa suleymaana daawud suleymaanu daawuda qaala mu ne yaa ayyuha naasu yéen ñi yëg ne yónni nañ ma te ullim naa xamaleef nañu mantiqa tayri waxi picc xam naa ko wa ootii naa joxeef nañu min kulli cheyin ci lépp laf xam-xam inna haza lii nag la huwa alfadlu ngëneel rekk la almubinu gu lii nag mooy ngëneel nag xushira booleef li suleymaan junudahu lilem ba minil jinni ci jinne walla insi ak nit ña wa tayra ak picc ya fahum ñoom picc nit jinne jubóowuñu nga boole leen waaye fahum ñoom yuusauna def na tere leen ku ci ne dañ lay tere dolloor sa morom xata isa ataw ñuy dem nag ba dikk nag ala waadi nam li ci xur wi nga xam ne fa la xorondong ba dëkk waadi nam li ma nga ca Palestine fuñ xam la ba léegi xaalat wax fa namlatun aw xorondog ki ñu doon jàngal bu ci yegseel ne xorondog wu jigéenam bu góor ñun ñëpp ñu ne ko bu jigéen mu ñu ne mu ne lu tax ñu ne xaalat ndax atta ji ci namlatun mën naa am fekk ismu jin si jamoo la waaye xaalat moo nuy wan ne xorondog bu jigéen la moo doon buur ba mu ne yaa ayyuhan namlu ee yéen xorondog yi udduxuloo dugg leen masakinakum seen dëkkuwaay ya laa yaxtimannakum ndax du mabbaleen suleymaan wu junoo doog lelam bu bari ba wahum te ñoom laa yashcuruun duñ ko yëg fa tabassama suleymaan dal di muuñ daaxikan muy aji ree min qawlihaa ngir wax a wu jigéen woow wa qaala mu ne rabbi yàlla awzicnii yan a nga ma dénk an ashkura may mën a sant nicmataka say xéewal sët yi nga xam ne ana am te xéwal nga ko ale ci man waala waliday ak sama ñaari wayju waan amal ak nga dénk ma may mën a jëf saalihan jëf ji yiw joo xam ne moo mën a moo mën a nekk daal natta ngoog xéwal bi nga ma jox tardaahu boobu da danga gërëm ko wat xil ni yàlla nga dugal ma bi rahmatika ci sa yërmande fi ibadika saalihin ci sa jaam yi yiw yi suleymaan a ngay dem nag ba yàgg rek ñu ne soxla nañ ndox de mu ne ana hudhudda Moussa Njubure anamu gaa ñi xool-xooli nekk fi de picc yam ne nekku fi gisuñ ko de di ko gaaw boole naan ko newu fi de gisuñ ko de Suleymaan ne baax na ba mu ñëw moom nga xam ne mooy xamkati ndox soxla nañu ndox kenn gisu ko mu ne baax na ba mu ñëw danaa ko mbugal wala ma rendi ko sax mu dee bu daan mbugal picc nag da koy suqi teg ko ci ay xoron ak ñu koy mat doy na mbugal <clears throat> wane baax na olamaa yi ne daf ñuy jàngal danaa ko mbugal wala ma rey ko wala mu indiw lay gune balaa nga ko dóor da nga koy déglu ne lu tax nga def nangam ba mu wax léeg-léeg léeg-léeg gune gi gàtt wala mu yàq baat nekk yaa ko bindee noonu kon nag da koy wax ne tax nga wax ko noonu kon nag danaa la rey wala mu mbugal la wala nga indi lay wóor nga la Suleymaan wax ne baax na ñu toog ba yàgg rek hududa ne dare ne yow mi yàlla yónni yaay buur bi yow la yàlla yónni waaye xam naa ci nguur gi loo xamul tey mu ne ko lu mu doon mu ne wër naa ba gis réew moo xam ne jigéen moo fay buur te jant bi la ñuy julil buy so ak buy fenk maa ko gis mu ne foofu fan la mu ne saba yi fële ci yaman falaa naa woon dem ma fekk fa jënn jigéen di naan balqiis moo yelif réew ma ñoom nag jant bi lañuy ñuy jullil man sax waar naa leen fa ndax wax naa leen ne tee ngeen di jullil yàlla mi nga xam ne mooy génne ndëxañteef ci suuf waaye faale wuñ ma Souleymane ne ko baax na kon nu seet gaw ma sa wax ji waaye danaa seet damaa ragal ne dangaa lay rek ngir bëgg a mucc ci sama mbugal waaye danaa seet ndax wax nga dëgg wala dangay fen daal di ne léegi damay bind lettre nga yóbbul leen ko comme yaay narkatu njëgg yow la ñu yéen mbuus mi yaa ko xam yaa ko gis yóbbul yóbbul lettre bi daal di bind wa annahu min suleyman wa annahu bismillahi irrahmani irrahim allah taalu alayhi wa atana muslimin daal dina yóbbul tamp ne ko jox kum daal di ngànk ci gémmiñam rek tëb ba mu ñëwee sabay fekk balqiis ci gàngunaay gi gaañaa ngi koy upp ni ñaa ngi tirim wër ko xamul nu muy def bañ gis ko ndax bu ko sànni legi te yaakar ne xeyr wuy naaw la mu xol gis benn fenêtre bo xamne bu fi jant bi tollo rek ñu xamne ne mu ngi bëgg so naaj bi dugg ci ñu julli ñu su jotal jant mu dal di ñew rek tong ci fenêtre ba fokk dinañ ko xol ba bi yegg naaj bi dugg rek ñu naaj dugg ci na xol ko rek mu ñu dal jël dañ ko xottee nag mu dal di ne mbolo mi ah man de waay leetar bu tedd moo ñëw ci man mu ngi jógee ci benn buur bu naan suleyman ma nga ca palestine leetar bi nag li ci nekk daf na ñëw leen jébbalu si ci yàlla ànd ak man léegi nag dama bëgg ngeen jox ma xalaat ci loolu ndax man kat may buur waaye musuma dogu ci menn mbir lu ma yéen ngeen teew ku ne wax ci xalaatam gaa ñi ne ko ñun daal doole lañ am ak kattan ak i ngannaay mbiram dogal ci yow la nekk seetal rek loo digal nu def loolu nun mu ne déet loolu baaxut nit buy diisoog yow lu mu nekk nekk kilifa da nga koy jox sa xalaat waaye bu leen wax rek ñun ñoo am kattan xamu leen ne buur bu duggeem réew da koy yàq waxtu beneen buur duggeem réew da koy yàq ndax bu fa xeexee day jàpp ñu nekkoon buur ñooy mujj nekk ñu torox noonu rek lañuy def kon nag xaar leen ma yónni leen ay cadeau na ñenn ci ñeen yéen ñëw yóbbul ko ay may ak i yu bari lii wurus la li xaalis la li yeneen ahjaar karima la li ay jiloot la li yeneen la yépp ngeen yóbbul ko bu fekkee àddinaa ko yitteel kon may yooyu dina ko doy day xemam yeneen ma di ko jox bu fekkee àddina yitteelu ko nag kon du ko jël ñu ne baax na ba gaañu Maya maya jox ko suleyman suleyman ne aha ñi alal lañ may jaay man alal daf ma tax juk man lima yalla mo gën man bëgguma li yobul len senaji su ngeen demee ngeen ne ko dana ko indil ab lil dana ko indil ab xare bo xamne dana bari ba melni ni te du am fu mu jëm ak moom te bu xare bi ñëwee ba ma dugg dëkk bi danaa ko génnee dëkk ba mu nekk kuñ jàpp ku torox lettre bi ñëw balqis jàng ko ne ah li de du waxi caaxaan kii àddina taxu koy jóg kon nag bu fekkee mi ngi d'accord ngeen di man de damay dem dabi ko su ma su ma demee ca moom ma dugg ci diineem ànd ak moom jaamu yàlla ndax waxam ji waxi dëgg la mu dal décidé nak and ak mbolom ne ma ngi jébal ci ci diiné ja ba mu joggé rek di kërëb kërëb yi ñëw jinné yi xamal Suleyman ne Balqis ngi ñëw jinne yi nak dañu ñaanas leuf ñu né Balqis ngi ñëw de waaye nak mom du nit jinné la dañ koy fi rek Suleyman ñu né mom du nit jinne la bo gisé yaram bi dafa am kawar ba kawar gi dafa dafa dafa mur yaram bi yépp kawar la du nit Suleymaan ne waaw waaw kon nag ana kan moo indi indil piliyaanam ba balaa mooy yegg si ma nga nee de pënd baa nga ne le mais balaa mooy ñëw fii kan mooy mën a indi gàngunaay gi ci Yaman indi ko Palestine benn kuyel jinne ne kooku de maa ko man man mën naa ko ku dëgër laa ci mën ko indi ku ñu wóolu laa danaa ko indi te du yàqu Suleymaan ne ko yow dangaa yéex ku la gën a gaaw laa bëgg benn waaye ne man di maa ko mën a indi léegi xëf boo xëfee rek balaa ngaa xippi danaa ko teg ci sa kanam Suleymaan ne loolu laa bëgg waa ji ne ko gàngu naay gaa ngi ni sa kanam ba mu teewee Suleymaan ne lii day nga ne lu yàlla rekk la nag yàlla daf may nattu ndax lii mu ma jox dama ko ci santam dama koy weddi di bew xamna ne ku sant nak sa bop nga koy def waye ku wet ku weddi nak yalla day am nañu koy sant suleyman ne gañi gaw len ngeen rocc ben wiis wala dindi dara ci ci plan bi bala mo ñew ndax mu xawa wutek bosam gaw gaw len ngeen am lu ngeen ci def gaa am luñ ci dindi dindi ci dara tek ko fele ma ngi set ndax ndaw si am na xel wala amul xel ndax so amul xel buñ ne ko ndax li sa plan la nan waw su amé xel nak dana sétantal xamné amna lu ci jog mu xamné dafa niro rek loolu lay sét muy ben ndax jinné amuñu xel may ndax jinné la benen bi itam mu né gaaw len nek bima koy dalal derbi bi ci perang bi yépp na ngeen ko def ay kawarginnya ak sétu lay sét ba xam ndax kawar gi ne mo ne ci yaram wi deug lam dit ndax jinné lam nit ndaw ci dal di yegg si ñu ne ko ndax li sa kay bala mu dal di ko xol ne ah, danaka mom la de daanaka mooy am na lu ci wàññeeku réem bëgg dugg yaakaar ne lii am ndox la ñu ne ko déedéet seet ay weer rek la seetu la jàllal mu xool fekk li gaa ñu waxoon dara amu ci balqiis dal di dugg ci diine ja suleymaan dal di ko takk delloo ko mu nekk buuru yaman suleymaan def at mu nekk mu dem fa loolu la ulamaawu taarix nettali ci gàttal ci lool qissa bi gën a gudd loolu yàlla ni wa tafaqada nemmeeku na nemmeeku mooy toog toog rek gisoo dara atayra picc ma fa qaala mu ne maa liya loog man laa araa gisuma alhudhudda am kaana ndax dafa nekk min alxaayibiina ca way faddu ya lu tax gisuma hudhudda ndax daf fee nekkul la wa'addibannahu wallahi dana bugal ko aadaaban bugal shadidan mu daaji metti aw la adbaxannahu wallahi danaa rendi ko aw la yaatiyani wala mu indil ma bi sultaanin ci lay mu binin wu daaji bir fa makusa newul jàng xeyru baidin yàggut newul jàng mooy yàggut qaala mu ne axattu man day léem naa mooy xam naa bi maa lam tuxit loo xam ne léemu loo yow yonent bi ci moom xam-xam wa jiitu ko dikkal naa la min saba maa ngi jógee saba i bi naba in mooy yaman bi naba in ci solo yaqinin bu wóor i man wajatu fekk naa imraatan jigéen tam li ku moo leen moom wootiyet joxeef na ko min kulli shay'in lépp lëf wala ñel ndaw sa arsun gàngu naay aasimun gu màgg wajatuha fekk naa ko wa xaw maag ñitam ña yesu ju doon ñu ngay julli li sam ñeel jënt bi min dooni laay ñu bay yàlla wa zayyana rafetal na loom ñeleen cheytaan amaalum seen jëf fa saddaw mu sob naa ba di leen fa wax ne moo ndax duñu sujjóot lillaahi ñeel yàlla alasi yàlla mi nga xam ne yuxriju mooy génnee alxaba ndaxañteef fi samawaati ci asamaan ndaxañteef mooy lu ñuy denc wala ardik suuf wa yaalamu yàlla mooy xam maa tuxfuun la danañu nëbb ko maa tuxlinuun ak la danañu feeñal ko allahu yàlla moomu laa ilaa di benn buur ilaa walu may moom rabbul arshi mooy borom arash alazim bu daay ji màgg qaala mu dal di wax ne sa nanzuru danañu xool asadaqtu ndax dëggal nga am kunta wala nekk nga minal kaadibiina ci way nar ya idab demal bi kitaab yi sama téere haza bi falqi sanni ko ilim ci ñoom su ma ta wala nga daal di bu fa toog nag dal di wàññeeku anum walis leen fandur seetal ñu daal di seet di muñandiku nag maasa yarjiun lan la ñuy delloo comme tont qaalat ndaw sa ne yaa ayyuhal malaw e yéen mi inni man de ulqiya sanneef na ilay jëm ci man kitaabun téere karimun bu daa ji tedd innahu naka téere min suleymaan la jóge wa innahu moom téere bi mooy bismillahi arrahmani arrahim allah taalu ndax du leen ñëw alayya ci man waato ni ngeen dikkal ma muslimin ngeen di way omatu qaalat ndaw sa ne yaa ayyuhal malaw e yéen mbooloo mi aftuuni na ngeen ma ubbee fi amri ci sama mbir maa kuntu nekkuma qaatiatan di aji dogu amran ci menn mbir xataa tashhaduun ba ta ngeen teewe ñëpp xaalo ñu ne ko naanu ñun daal uli quwatin ñooy borom kattan uli quwatin ñooy borom kattan li uli baasin ñooy borom ay wi shadidin wu daaji tar wala amru mbir mi kay ilayki jëm si na ci yow ndaw si fanzur yi seetal maasa tamurina lan nga ñuy digal xaalat mu ne inal muluka nag ay buur isa xaloo buñ duggee xariyatan ab dëkk af sa ñu yàq ko wa jaaloo ñu mujjël aizat aliha ñu gënoon a tedd ci dëkk ba adillatan ñu di way torox wa kazalika yafaluun noonu rek la ñuy def way ni man nag mursilatu naa ji yónni laa ilim ci ñoom bi addiyetin ci benn cadeau mu dig may fa nazratun maa ngi mu ñandiku nag li ma yarjiu lan lay delloo si al mursaloon ñi ñu yónni woon cadeau ba fa la maa jaa ba mu dikkalee Suleymaan qaala mu ne atamu duune nii moo ndax da ngeen may tëbb bi maa leen ci alal fa maa aataaniya la jox na ma ko laaw yàlla xayrun moo gën bi maa aataakum ci li mu leen jox ballu fi nekk antum yéen tafraxuuna yéen a ngi bégee bi hadiyatikum seen hadiya irji dellul ilayhim ci ñoom fa la naatiyannahum danañu indil leen bi junoodin ci leel boo xam ne laa qibala déet ak wàlla déet kattan lawum ñeel leen bihaa ci moom wala nuxrijannahu danañu génnee leen mihaa minhaa ca sabay adillatan ñu di way torox wahum te ñoom saaxiroona way torox lañ xaala mu ne yaa ayyuhal malaw éy yéen mbooloo mi ayukum kan ci yéen yaati nii moomay indil bi arshiha ci gàngunaayam ga xabla an yaatu nii njëkk bañ may dikkalat muslimina di way jébalu ci yàlla xaala wa ifritun genn madd minal jinni ci jinne mu ne anaa man aatika maa lay indil bii ci moom qabla an taquuma njëkk ngay jóg min maqaamika balaa nga fay jógee ma indi ko wa inni man alayhi ci indi ko la qawin ku dëgër la aminun ku ñu wolu nga qaala wax mu ne ko man loolu yàgg na qaala wax alladi ki nga xam ne ali indahu nekk na fi moom ilmun benn xam-xam min al kitaabi ci téere bi sawi alal jalaalayni nee na kii indi gàngu naay ga du jinne nit la mu ne ki moo ëpp doole ci yàlla ak ci man-man ak ci tëjaliyaat tasarruf jinne ja mu ne benn wàlliyu nit bu tudd asif ibnu barxiya moom la xaasiyatu saa yi wax allahu aalam ndax la mu wax am na am déet nga ne ko ko ko indi waaye alquran daal daf ne kii am xam-xam ci téere ba moo wax ne ana man atika maa lay indil bii ci loolu xablaan yar tëdd njëkk bay dellu siyaat ilayka jëm ci yow farfa ko sab gis falamaa raahu ba mu ko gisee yow borom xaasiya boo ko xoolee da ko gis falamaa raahu mu ne ba mu gisee gàngunaay ga mustaqiran ma nga sax indoo fa moom qaala mu ne ko haza lii de min fadli rabbi mu ngi jógee ci ngëneelal sama borom li yëpp lu wanii ngir mu nattuma ashkuru mu ndax damay sant am akfuru wala damay weddi wa man shakara ku sant na fa innama yashkuru naka dana mu sant li nafsi ñeel boppam wa man kafara ku weddi na fa inna rabbi sama borom ganiyun aji doylu la karimun sama borom ku tedd la qaala mu wax moom suleymaane nakiroo fakkalu leen laa a ko arsha ga na ngeen fexee ba mu fakk ko ba du a xàmmi su ko defee ñun nan zuru ñu xool attaxte di ndax dana jub am xel am takkuun wala day nekk ci nit ñi nga xam ne mi ne lajine ci nga xam ne laa yaata doon du ñuy jub fala maa jaat ba ndaw si dikkee xii la waxeef ko ahaaka saa ndax lu mel ni lii arsh ki mooy sa gangu gàngunaay gi xaalat mu ne kaanahu daanaka moom day huwa moom la waaye wa utinaa joxeef nañu alel ma xam-xam min min min qabliha bala moo ñëw dafa am lu ñu waxoon ci moom moom lan doon seet wakku naa nekkoon nañ muslimina di way omatu wa saddaha fegoon na ko maa kaanat la mu nekkoon taabudu di jaamu ko min lay laa dudu yàlla loolu moo ko fegoon ba daawud jaamu yàlla innaha naka ndaw si kaana nekkoon min qawmin ci nit kaafiri ni ñu di way weddi xiila waxeef laa ñel ko duxuli dugal sarxa taax mi dugal ci dugal ci tabax bi dugal ci tabax bi ak taaxum kaw mi falama raathu ba nga xamee ne gis na ko xasibat hu mu joor joortu ko ne lujjatan am lëgg la mu yaakaar ne ndox la wa kachafan mu muñ ñi an yaa ci peri tànkam ba di dugg xaala mu ne ko innahu naka lii sarxun lu ñu rattaxal la wala nga ne sarxun am taax la mu maradun mu ñu rattaxal min xawaariri ci butel maanaam ay weer la na nga dugg rek xaalat mu ne rabbi yàlla inni man balqiis azalamtu tooñoon na nafsi sama bopp ci jaamu ku dul yàlla wa aslamtu jébbalu naa tey maa suleymaan ànd ak suleymaan waaye ci kan lillahi ñeel yàlla de rabbil alamin borom bindeef yi ànd ak suleymaan jébbalu ma ci suleymaan waaye dama ànd ak moom nu dem ci yàlla loolu mooy kalimatu tawxid bi bay na loolu mu ñëw ci baamtuwaat samuuda wala qad arsalnaa yónni woon nañu ila samuud axaawum seen mbokk ma saalax xaala mu ngi naan mu leen wax naan bu doo jaamu leen laa yàlla fa isaawum ci betteel fariqaani ñu nekk ñaari kuré yaxtasimuna ñu ngay xuloo ñii gëm ñale weddi xaala mu ne yaa xaw mi yéen sama nit li ma lu tax na ngeen di yàkkamti bi sa yeeti ci lu bon li qabla alxasanati njëkk ngeen lu baax law laa tastaxfiruun te ngeen ñaan njag yàlla njéggal laa yàlla laalakum ndax yéen turxamuuna def yéram leen xaalu ñu ne tayyar naa ñu ndey gaaflu nanu bi ka ci yow wa bi man maaka ak ñaan ak yow xaala mu ne tayrukum seen gaaf kay indallaahi ma ngi fa yàlla ballu fi nekk antum yéen qawmun aw nin ngeen tuftanoona def na nattu leen wa kaana nekk na fil madinati ci dëkk ba tisaatu raxtin juróom ñeenti giir ñoo fa nekkoon ci xeet wa juróom ñeenti giir yooyu ñoom lañ ñoom lañ yónni woon ci ñoom euh, saalax mu jox leen gëlëm ga juróom-ñeenti giir yooyu yëpp yufsiduuna dañ doon yàq fi laadi ci suuf na wala yuslihuuna mosuñoo mosuñoo yéwénal xaaloo ñu ne te xaasamoo nañu nañu géñante billaay ci yàlla ñu daje dal di fexe dal di géñ dal di ne lanu bayitannahu danañ ko fanaana fexeel waalo ak i bokkam su ko defee nu rey ko boo lëgee nag bu ay bokkam laajee ñu ne yëgunu ko su man la naqulan danañu wax li wali yi ñeel ñu méngoo ay mbiram bu ñu laajee ñu ne maa shahid naa ñu ne fekkewuñu mulika aali yi ba ñuy àll ak ñoñam ñi way naa ñun la sadiqu na way dëggu lañ yàlla ne wa makaroo fexe nañ makaran fexe waaye ñun yàlla nag wa makar naa dogal nañ makaran ab dogal wahum te ñoom laa na yëguñu fandur seetal kayfa kaana naka lay nekkee aqibatu makrim mu jëg seen pexe ma annaa ñun yàlla dammar naahum alag nañ leen wa qawmum seen nit ñi ajma'iin wala seen fa tilka foofale bu yotaw mooy seen néeg ya xaawiyatun aji aji aji fiix la aji wéet la kenn dëkkatu fa mooy gent na bi maa dala moo ngir la ñu tooñoon inna bi dalika aji nekk la ci loolu laayatin kaw téef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne boo leen seetee ñoom ñëpp yàlla moo na ñu xam waan jey naa musal nañ la dina ñi nga xam ne amonoo gëm nañ wa kaanoo te nekk nañu yettaquuna di ragal yàlla naka noonu itam mu yónni yónte Yàlla Luut kon li muy jàng ci Luut dana ci yóbbuwaale ñetti bind yu bokk ci darsu ëllëg ba kon ma ngi war a taxaw ci fassa amatarul munzarin ndax foofa la li mu doon wax di daanoo loolu lay wax ne wa lootan jàngal luut is qaala ba muy wax li xaw mi yi ñeel nitam ñe ne ataatuna ndax da ngeen di dikkal alfaaxisata ñaawteef wa alfaaxisata lu bon la mooy ityaanu zakari doona nisa wa antum yéen tub suroon a ngeen xam ne baaxut ay nakum naka yéen la taatuna da ngeen dikkal rijaala ay góor shahwatan banneex min doon nisa yi ngeen bàyyi jigéen ballu fi nekk antum yéen xaw mun aw nit ngeen tejalu na da ngeen a réer buur ne fa maa kaana nekkut jawaaba qawmihi tontu nitam ña illaa an lu may ñu wax ne axrijoo génne leen ala loota nitu loot min qaryatikum seen dëkk bi ndax innahum ñoom unaasun aw nit lañ yatataxaruuna yoo xam ne dañuy laabal laal góor faanjee naaw ñu musal ko waaloog ñoñam illam raatoo lu may jabaram ja qadarnaaha dogal nañ ko ne minal gaabiriina da bokk ci way alkuya wala way des ca mbugal ma fa am tar naa ñu tawaalim ci ñoom mataran ab taw fa saa bon na matarul mundarina tawab ñi nga xam ne dañ leen a waar ñu bañ a waaru صدق اللهم العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورازقنا من الشاهدين اللهم انصرنا بحق القرآن الكريم اللهم استر عيوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطول أعمارنا وزد في أرزاقنا اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغن فقراءنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصنا اللهم احمنا واحم بلادنا واحفظ بلادنا وحكامنا وعلماءنا وعلماء جميع المؤمنين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 laa xawla wala quwata illa billah mu wéy ci lim doon wax ne ay tegtal yu wóor yuy tekki kenn yàlla ak kàttanam mu nequl waxal alhamdulillah cant ñeel na yàlla wa ibaadihi na nekk ci jaamam ya alladina ña nga xam ne istafa tànn na mu leen léegi nag allahu ndax yàlla moomu xayrun moo gën ama yushrikuun wala li ngeen di bokkaale aman xalaqa moo ndax ke bind na mu samaawaati asamaan yi wal ard suuf wa anzala te mu wàccee lakum ñeel leen mina samaa yi ci asamaan maan am ndox fa anbat saxal bi ci moom xadaayiqa ay tool daata baajatin yey boromab maakaana nekkul lakum ñeel leen amuleen woon benn kàttan antun ngeen di saxal shajaraha garabam ya a ilaahu ndax am na yàlla ma allaahi bu ànd ak yàlla boobu ndax yàlla jooju am na yeneen yàlla yu ànd ak moom ballu fi nekk hum ñoom xawmun aw nit na yaadiluuna danañu sàkkal yàlla ndend aman jaala moo ndax yàlla jii def alarda suuf qaraaran muy saxuwaay wa jaala mu def xilaalaha ci diggante suuf anhaaran ay dex ak yolnde wa jaala mu def lahaa ñeel suuf rawaasiya ay doj mu di kenn yu koy téye wa jaala mu def baynal baxrayni mu def ci bopp suuf si nekk mu def fa ay doj yoo xam ne ñoo koy téye wa jaala mu def baynal nii diggante ñaari géej gi mu def fi xaajisan ab pom bu koy diggale a ilaahun ndax am na jenn yàlla ma allaahi bu ànd yàlla boobu ndax yàlla jooju amaat na meneen morom ballu fi nekk ak taruhum gën ja bëri seen laa yaalamuuna xamuñu mu ne aman yuy jibu ndax yàlla bi nga xam ne day woyu almutara aji loru ida daaw bu ko wooyee wa yukshifu te muy uññi soo alu bon li waaye yajaalukum mu leen di def xulafa al ngeen wuutu ci suuf a ilaahu ndax am na benn yàlla ma allahi bu yànd yàlla jooju su fekkee loolo nekk ci seen xel day nga xam ne xalilan kon waaru gu néew maa tazakkaruuna mooy seen ak waaru aman yahdikum ndax yàlla ji dina jubal leen fi zulumaatil barri ci lëndëm ak jéeri ji wal géej wa man yursilu ak yàlla ji yónni riyaaxa ngelaw ya bu bushuran ñuy béglee bayna yaday rahmatihi ca kanam yërmandeem a ilahun ndax am na ay yàlla ma allahi yu ànd ak yàlla jooju taala allahu jomb na yàlla ama yushrikuun ci lañ koy sàkkali morom aman yëpp daw ndax yàlla ji nga xam ne dafay sos alxalqa bind ak bindeef su ma yuciduhu topp mu koy delloo wa man yarzuqukum ak dana mu wërsëgal leen ndox عقيقة من السماء مبايك السمان والأرض اله دا امنا جنن يالا مع الله جان يالا جوجو سفكي واو قل وحل نيكون هاتو اندي لين برانكم سينو لاي إن كنتم جيم نيك نين صادقين دي وي دغ kul waxal ني لا يعلم قم الدي من في السماوات ني تي اسمان wala ardik suuf kenn xamu ci al ilallaahu lu ma yàlla rek wa maa yusha yashcuruuna yëgalut leen itam ayaana yubaasuun kañ dee fi dekkal leen ballu fi nekk idraaka ilmuhum idraaka loolu mooy seen jotuwaayu xam-xam idraaka ilmihim loolu mooy seen jotuwaayu xam-xam rek wala nga ne draaka xam na jotuwaayu loolu ilmuhum seen xam-xam daal foofu la ak jotam di yem seen jotuwaay xam-xam daal moo fu yem rek waaye yéen leen ci dara fi la axirati ci àlaxira fi nekk hum ñoom fi sekkin way nekk lañ ci sikk minha ci loolu bu fekkee jege naag jegewut ñoom daal wóorul leen yemuñ ci réere ko waaye dañ ci am sikk mooy leerul la rek ballu fi nekk hum ñoom na way selmaxa lañ min haa ci xam-xam boobu ba ñu xam ana kañ la bés yi ñëw wala kañ kañ di fi dekkal leen bàyyi na loolu mu ñëw ci pas-pas pas-pasab dekki mu nekk ci fondement yi nga xam ne kuy gëm da nga ko war a gëm mu ne waqaala wax na lijina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ ay zakun naa ndax ndem nekk nan turaaban suuf waa baawu naag sunu bàyyi deewoon bu yàgg a innaa ndax nun la muxrajoona ñu ñu nar a génnee lañu mu ne ah laqad waid naa dëleef nañu haasa nax nu ñun waa baawu naa ak suñu bàyyi min qablu bu yàgg mu ne in haada déet lii ilaa saturul awalin lu mooy muy nettali ak feni mag ñu jëkk ñi rek dañ ko yàgg dégg rek waaye dékki daal amul kon loola itam mu ngi mel ni li yàlla waxoon léegi rek idraaka ilmuhum seen xam-xam moo toll foofu lii lañ ci jot a xam la ca des bu yowmal qiyaamee xam-xam boobu jot si leen maanaam lii mottali xam-xam boobu moom ma nga ca àllaaxira fa lay mate suñ demee ba ñu gis lañ leen dëloon ñu xam ne dëgg la xul waxal ne suroo tukki leen filaar di ci suuf fanduroo seet leen kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mujrimiin مو جاك دفكتي بكاريا ولا تحزن بالجاق عليم تي نيوم ولا تكن بالنك في ضيق تي خط قل اما تي ليغا خامني نيوم يمكرون نيكاي فخه ناخ ويقولون نيغا نان متى هذا الوعد كاج لا بوبله دل ان كنتم دم نك نين صادقين دي وي دغ من يقول وقال عسى امنا ان يكون دي نك فخ صح radifa jege na lakum ñeel leen baadu lazi leni la nga xamne ne tustaaji na da ngeen yàkkamtiku man na am sax fekk li ngeen di yakamti mudi yowmal qiyaam jege na wa inna rabbaka nag sa borom la zu fadrin borom nga ne la ala nasi ci nit ñi walakin waye aktarahum ngeen jëbari seen la yashkuruna dañ ko du sant wa inna rabbaka nag sa borom la yaalamu dana xammaa takkinu la dana tukkinu la dana nëbbëkk su dóoruum seen dënn ya muy xol ya wa maa yuclinuun dana xam la danañu feeñal ke itam wa maa min gaayibatin amul lenn loo xam ne aji fàddu la mu fi samaa yi ci asamaan wala ardeg suuf illa fi kitaabin lu mooy loola nekk na cib téere mu biinin bu dee aji bir bàyyi na loolu mu ñëw ci alquranul karim ak yenent bi ci boppam nee na inna haza alquran naka jile alquran di wàcce ci yow yaqussu dana nettali ala bani israil aktara alladi gën jaa ci li nga xam ne hum ñoom yaxtalifuuna way wuute lañ fa wa innahu naka téere bii la hudan njub la wa rahmatun yërmaande la lil muminina ñeel way gëm ñi yàlla inna rabbaka naka sa borom yaqdi muy atte baynum seen diggante bi xukm yi ci atteem wa huwa yàlla al aziz mooy aji not ci kàttan al alim mooy aji xam fa tawakkal sukkandikul kon alallahi ci yàlla moomu naka naka yow yonent bi alal xaqi yaa ngi nekk ci dëgg ak yoonu dëgg almubiin guddee ji biir it naka naka yow dey waaraate ci nga mën a yem ak jubbanteeg wax waaye laa tusmicu doo mën a déggal nag almawta way deeya wala tusmic doo mën a déggalit asumma aji tëx adduaa ab woote isa wallaw bu ñu mut dëddee mudbiri nañu di way joxe gannaaw ab tax moom lu nekk mën nga kaa def ci moom waaye bu la wanee gannaaw daal woo ko muy dégg doo ko mën te ñii mel na ni jox nañ la gannaaw dootuñ la gëm wa ma anta déet yow bi haadil um yi ngay ji ngay aji jubbanti selmaxa an dalaalatim ci seen réer gi ndem na nguñ laa topp doo ko mën a omat in din ngay déggal illaa man yumin lu may gëdën a gëm bi ayatina ci suñu alquran fahum ñoo muslimuun way omatu lañu mu indi benn manzar ci yowmal qiyaama loo xam ne mufassiroona yi indi nañ ci wax ju bari na mu yàlla ne balaa dina tukki dana am daaba ju génn ci suuf di wax ak yéen loolu ba ko alquran waxee ñoom it saawi alal jalaalayn ibnu kathir ku nekk ci ñoom taawil na ku nekk ci ñoom it wax na na ko foogee ndax yàlla def na rekk balaa dina tukki dana benn daaba bu génn ci suuf di wax ak yéen bindkat yi nag indi nañ ci riwaayaat ak i ahadis yoo xam ne dara wéru ci di tumurankel daaba jooju ñii di ko melal yi di wax nu yaram way mel bind ba xeet wa waaye ajasi na dafa yaakaar ne dañoo juum daaba jooju yàlla yi wax soriwut doomu rekk la nitu ordinaire la ndax nit ci daaba yi la bokk ndax daaba mooy lu dox dox ci kaw suuf nit lay doon ku xam kitaab ak sunna ku xam sharia kooku rekk mooy feeñ bokk ci ulamaawu yi ci waxtu woo xam ne ulama yu ñu néew lañu xam-xam dem na bay bëgg a jeex kooka dal di feeñ di wax ak nit ñi waxtu woo xam alquran ñi ko xam dafay néew lool ñi yore diine di ko jëfandikoo tumuranke lool ci kaw suuf yàqute gi dal di daj réer dal di tasaaroo xam-xam-xamu diine dal di tumuranke nit ñi tàmbali di jiital ñu xamul dara ñu leen di laaj waxal ci seen diine lu ñu xamul ñu réer te réeral leen su boobaa nag aalim ba bu feeñ di wax ci diine xam kitaab ak sunna loolu rek la jublu ci daaba ji waaye la ci nit ñuy wax ci tafasir yi loola daal nekkul loo xam ne luñ mën a sukkandikoo la mosoon nañu laaj yonent bi alayhi salaatu daaba jooju ak fu muy génnee mu ne leen taxruju min aadami almasajid xurmatan ala allahi taala muy masjidul xaram mu ne kooku ma fu muy feeñee kon mooy mag ne ka buy wax yu leer nañ di jubbanti doomu aadama yi loola mooy li ñuy sukkandikoo waaye li yeneen tafaasir yi nag di wax ci daaba ji loola moom bu ko téye buur ne wa isa waqaa su fekkee tabbinaal xawlu wax ja lan mooy wax ja wax ji muy wax asraafil ne ko walal ci bufta bi mu def nafxal uulaa ñépp dee loola nag bu wax ji naree ñëw axrañ naa ñu génnee lahum ñeel leen daabatan benn daaba min al ci suuf tukallimuhum muy wax ak ñoom kon nit la anna naasa nag nit ñi boobu kaanoo nekk nañ boobu laa yow xinoona duñu wóolu bi ayaatinaa ci suñu ak kawtiif buur ne wa yow ma naxsuruhum bés ba dana nu fa nga leen min kulli ummatin ci bépp xeet fawjan ñu dig maas bi man yu këddi bu nekk na ci ñoo xam ne dañuy weddi bi ayaatinaa ci suñu alquran fahum ñoom yuzauna deef na tere leen kalimatu yuzaun firi woon nañ ko ci nam li ca gannaaw indiwaat na ko yuzaun ay yumnaun xata isa jaawu ba ñu dikkee nag xaala mu wax ne ak kadabtum moo ndax weddi woon ngeen bi ayati sama alquran ci àddina walam tuxitu te yéen day leen bi aa ci loolu ilman benn xam-xam amaada kuntum lan ngeen nekkoon te amaloon di def ko keroog wa bi na alayhim ci ñoom alqawlu wax ja bi ma dalamoo ngir li ñu tooñ fahum ñoom laa yantiquuna duñ mën a wax alam yaraw ndax gis suñu ndax xamuñu ne an naa ñun yàlla ci suñ kawtéef jaal naa def nañ léeg-léeg guddi li yëskunoo ngir ñu dal fii ci guddi wa nahaara ñu def bëccëg mubsiran mu yaa ji leer inna bi dalika ji nekk la ci loolu laayatin kawtéef li qawmin ñeel nit ñoo xam ne yuminuuna danañu gëm yowmul qiyaam mooy walla bufte bi ñëpp a dee doj yàlla mokkal ko wala yàlla ne leen dem leen nga seen doj yi nit ñu lay romb di dem ulamaawul jagraafiya ne nañ loolu boobu dar sub jagraafiya la ndax toog bi nga toog ci suuf si di xool montagne yi danga yaakaar ne montagne yi ci benn béréb lañ nekk fekk ndekk dañuy wëndeelu ànd ak yow kon yaa ngay séenta ji ñu mel ni dañoo toog waaye ñu ngay romb nit ni réy rombo lu tax yow doo ko yëg ndax yi buy romb fi nga toogoon nga toog fi mu toogoon la toog buy romb da ngeen di ànd di romb rek nga yaakaar ne dafa dal wala dafa toog ci benn béréb loola tax doo ko yëg waaye bu fekkoon daju rek kay dem suuf si demut kon da nga koy yëg ëpp gi la suuf si ëpp ndax Sénégal rek benn réew lay gis nga ni mu la ëppee bu doon Sénégal rek ay dox sax doo ko yëg waxuma laag bu suuf si yépp di dox nag yow doo ko yëg boo jëloon benn melentaan nga teg ko ci lu toll ni kër nga jël palaat bu tël ni kër gi nga teg ko ci boo ko yëngalee du ko yëg te lii moo gën a rëy loola moo tax mu ne wa ma yoon faxu bés ba dee fi wal fi suuri ca bufta ba fa fazia dal di dee ngir tiit man fi samawaat yi ñépp ñu nekk ci asamaan wa man fil ardeek ñépp ñu nekk ci suuf illa man shaa lu mooy que soob na ko allahu yàlla olamaa yi jëm nañoo sonn ci kan mooy kooku bu ñëpp dee illa macha allahu kan la waaye ñu bari ci ñoom ne nañu mooy malaaka mi ñu sant muy wal bufta bi kooku mooy illa man sha allahu te moom it dina dee gannaaw ga wa kulun képp ci ñoom atahu dik way dikkal lañ yàlla daaxirina ñu nekk di way toroxlu wataraa nga gis nag aljibaala doj ya taxsabuha yaa ngi ko joortu jaamidatan muy aji way ci benn béréb way ya ta doj ya tamurru ma ngay romb marra saxaab comme rombug nit yi suna allahi jëfu yàlla ngoog allazi yàlla mi nga xam ne atqana xereñe na kulla shay'in lépp lëf innahu yàlla xabirun ku dañ kumpala bi ma tafaaluuna ci la da ngeen def ko man jaa ku dikkee keroog bil xasanati ci lu baax fa law ñeen na ko ci pay xayrun lu gën min ha ca lam doon def uhum ñoom min fazai yow may sin ci tiitum keroog aaminoona way wóolu lañ wa man jaa ku dikkee na bit ci lu bon fa ku bat ja teef wu joom seen kanam ya fi naari ci safara xaal tuji saw na ndax def na fay leen illa ma kuntum lu may la ngeen nekkoon taamaluuna di def ko bi maanaa déedéet ku nekk li nga doon def lañ lay fay léegi nag innama umirtu naka digaleef na ma man mi ñuy yónni day ana abu damay jaamu rabba haadi albaldati borom bi réew alazi bi nga xam ne arramaha xaraamal na ko wa kullu cheyin lépp lëf wala wa ñeel na ko kulli shay'in lépp lëf wa umirtu digaleef na ma it ana na may nekk minal muslimina ci way jébbalu ci yàlla waan at lu wa digal nañ ma it ma jàngal quraan léegi fa ma ne tëddaa ku jub na fa innamaa yaatadi naka dana jub li nafsi ñeel boppam wa man dalla ku réer na nag faqul waxal ne innama ana naka man minal mundarin bokk naa ci way waare yi bokk naa ci way waare yi way xuppa yi kookul waxal alhamdulillah cant ñeel na yàlla sa yurikum xalse naa won leen ayaatihi ay kawteefam fa taarifunaha ba da ko xam wa ma rabbuka déet sa borom bi gaafilin muy aji sàgg amma ci li nga xam ne taamaluuna dangeen def ko fàttewu ko bind na te dana leen ka fay